taalibe mi ñëw ci moom ci wet ñu ne ko wax ñu kañ la loolu di am te luy tegtale ne yaa ngi ñëw te àddina di tukki yéesu tontu leen ne moytu leen bu kenn nax ndaxte ñu bari ñu ñëw ci sama tuur ne maa di kirist te dinañu nax ñu bari dingeen dégg ay xare ak coowi xare wattuleen buleen ci tiit ndaxte loolu war naa am waaye booba mujj jamono ji jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew dina am ay xiif ak ay yëngu-yënguy suuf ci barab yu bari waaye loolu lépp mooy ndorteel metit yi mel ni jigéen juy matu bu boobaa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 bul wàcc ngir fab sa yëf ya nekk ca biir kër ga ku nekk ca tool ba bul ñibbi ngir fab sa mbubb ngala jigéen ñi ëmb ca bis ngala it ñi nàmpal ñaan leen nag seen gàddaay bu mu nekk jamonoy seddaayu lolli wala bisu noflaay bi ndaxte booba dina am metit wu rëy wu musula am ba àdduna sosoo ak tey te dootul am mukk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 waaye bés booba walla waxtu wa kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi ci kaw du sax man doom ji waaye baay bi rekk moo ko xam ni bési nooyen ya noonu lay mel bu doom yi nit ki di ñëw ndaxte ca bés ya jiitu mbënn ma nit ñaa ngi doon lekk di naan góor yaa ngi doon takk jabar tey maye seeni doom ba bés ba nooyen dugge ca gaal ga xalaatuñu woon dara